ba mën a fekkee lii ndax lu am moom la nag bu fekkee may ñu fekkee tal ci bësu àjjuma te ku ne xam na ni àjjuma mooy jëwriñu bës yi mu nekk bës bu màgg tey bu ñu defalee lii madame la ministre de la jeunesse et des sports et de la culture bës bu ñor ko lool nag ndax léegi nii même pas une minute la directrice arène nationale moo ma doon woo moom la Georges doon waxal nee ma ministre da ko woo léegi nee ko bës bi da koo ñor trop moo tax tey suñu mon frère bii Georges mii di grand abou ma la koy présenté grand Malick la jot na ko xam ak paa bi di ko présenté Père Matar ak Bébé Saloum champion bu mag bii parce que Bébé Saloum champion bu mag la ak Chef Diallo champion bu reconnaissant la ku ne xam na ne Bébé Saloum ci tanooru lutte ci la bokk mais nit ki dafa am ñoo xam dañoo am reconnaissance ci àdduna tey ci ñu ma formé ci la bokk te ku ne xam na ne Bébé Saloum ku bëreeg Ama Baldé daan Garga 2 yu mag yooyu noonu yépp nit ku nit ku champion bu mag nga mais léppam la bàyyi démb magu yaayam bu bokk ak yaayam ndey ak bàyyi moo gaañu ay coono boo gisee bëtam yu xonk yi dafa jóge kaw rek ñëw kon bébé Saloum mention spéciale ñi leen di présenter Georges parce que nit aussi bu fekkee da nga dem këram mu ubbi la bunt ràññee la xàmmee la xam li nga bëgg a def danga koy gërëm nit ku yàlla baaxal la ñun benn yoon ñaari yoon laa toog ak moom mais bu ñu ñëwee projet bi mu jël ko porté ko ba pare mu nekk aussi nitu kàddu te loolu la ñu soxla ci état mooy tey nit ñi ñëw am seen ay initiative nga jël ko àggale ko ministre bi ci tàng tàng bi la def note jox ko ministre bi ba pare boole ko chaque deux jours mu woo ma di ma laaj ndax audience bi am na kon nag Georges ñu ngi lay defal mention spéciale lii rek lañ ci bëggoon ñu li ñu sàkku ci xale yi mooy création d'emploi di la yóbbante ci ministre parce que li ñu bëgg def léegi rek laa jot Oulimata di ko xamal ni le premier ba la cinq di leen ko annoncé yi gën a riche te bëgg nañu ñëw ci bokkaat parce que bii di ñëw bëgg nañ ci def civisme bëgg nañ ci def transfert de fonds bëgg nañ ci def escorte moo tax du premier au 5 juillet ci kàttanu yàlla dinañ defaat beneen formation boo xam ni promotion bi aussi ki nga xam ne aussi moom mooy directrice arène nationale bi danañ ko ko tuddee mu nekk promotion Oulimata Sarr léegi nii mu kontaan ci lool kooku noonu Georges kon te Georges bi ñu toogee keroog aussi li ko gën a ñor mooy yéen mooy Issa yi daf ma ni Bamba man Issa yi daf ma ñor kon nag bu fi nekkee tey ñun ñuy taxaw loolu bëgg def une tournée nationale pour former tous les jeunes kon nag Georges ñu ngi lay nuyu di la sant di la gërëm bu baax di gërëm bu baax sama grand Malick si la taxawaayam rafet na grand Abouli sama papa Serigne Babacar Mboub père Mame Matar Gueye Jamra père Ousmane Diouf. waa ñun français la ñuy gën a wax mais tey moom il faut ngeen ma may ma mën a làkk wolof comme ñëpp di leen sant di leen gërëm am mbégte nekk ku nga xamee ne dañ ko yónni. te buñ la yónnee ki la yónni dalay teg si yoon wan la ne effectivement ñi nga xam ne ñooy euh, ndaw yi ñoom ñooy préoccupation Sénégal euh, balaa may tàmbali il faut que ma remercier imam Maktar ONG Jamra remercier Cheikh euh, Mboub ak équipe yëpp remercier également yéen ñi nga xam ne formation bi moo leen itteel ak euh, ñi nga xam ne ñoo leen koy jox mooy formateur yi am na taxawaay bu rafet bu nga xamee ne mooy li jëm ci sécurité dafa di lu nga xamee ne kenn dootu ko fooye gis ngeen li xew euh, ci dëkk yi nga xam ne frontière yi dafa commencé am ay lënt-lënt naka la sécurité di nekk lu nga xamee ne day nekk lu jouer ci économie luy joué ci gaa ci ci ci ci ci ci nit yi seen dem ak seen ñëw parce que sécurité bu amulee kenn du dem marché kenn du ñëw donc liggéey boobu tamit te du nekk liggéey bu yomb liggéey bu metti la parce que bu ñëpp di nelaw yow doo nelaw yow sa xel mooy naka laay def pour aar nit ñi ak seeni bagage ak seeni moomeel te taxawaay boobu tamit su ma ko dee def maa ngi ko dee def ci tuuru madame le ministre de la jeunesse des sports et de la culture madame Khary Diène bu am euh, gant bu ko mayul mu mën a ñëw ba fii mais yéene moo doon ñëw saafonte ak yéen waxtaan ak yéen xool formation bi naka la demee mais aussi yokkal leen ay taxawaay ci wàllu débouché ci wàllu emploi euh, tout à l'heure Cheikh Mboup wax na affaire u stagiaire mais loolu buntu buy tijjeeku la parce que yéen ñëpp yéen a ngi ci wàllu làmb nekk ci wàllu sport te gis ngeen stade yi dañoo soxla nit ñi nga xam ne dañuy aar ñi nga xam ne ñoom ñoo ñëw seetaan si pour place bi rafet du am désordre te ordre boobu loolu yëpp boo gisee ñu koy def pour nit ñi mën a am euh, présentation ba ki nga xam ne ki nga xam ne moo nekk télé di seetaan mu gis ne lii vraiment dafa organiser loolu tamit nekk la lu nga xamee ne bokk na ci objectif Sénégal naka la ñuy def ba ku ñëw seetaan si mën a seetaan si jàmm ñibbi si jàmm te jàmm rek di xew ci wàllu sport muy stade football yi muy mooy làmb ji te ite boobu tamit soo leen gisee man ma kontaan si c'est parce que Sénégal dafa nekk ci ay défi ñi ngi jëm ci Jeux olympiques xam ngeen li Jeux olympiques nit ñu bëri ñooy ñëw di pratiquer benn sport te nit yooyu bëri monde bi yëpp la ñuy jóge te bu ñu jógee ci monde bi yëpp am nañ taxawaayu kaaraange bu nga xamee ne yéen boo leen formé tey yàlla mën na def ñu soxla leen ci wàllu jeu olympique yooyu yëpp ay buntu yu tijjeeku la mais aussi balaa may avancé il faut ma taxaw ci Cheikh Mboup parce que ku nekk daal da nga koy seedeel pas-pasam taxawaayam ak yéeneem ci li mu bëgg def loolu mooy différence diggante ki nga xam ne am na yéeney def te toog ak ki nga xam ne am na yéeney def te jóg di dem wuti ku ko mën a jàppale pour mu mën a def te Cheikh Mboup dafa am taxawaay bu dëgër bu ko won ne effectivement li may liggéey lii dootul pour man waaye pour Sénégal la te comme itam mooy Sénégal itteem mooy ñun ñëpp suñu itte ndaxte ñun sunu ite mooy Sénégal voilà suñu mission boo ko dee gis ñu koy dox ñu ngi koy dox pour Sénégal mën a am organisation mën a am avancement ci bépp domaine bu nga xamee ne ndaw yi ñoo ko soxla loolu moo tax man tamit dama leen di soññ yéen ñi nga xam ne yéen la ñuy former ngeen am ci taxawaay bu dëgër xam ne yéen tamit boo leen leen amee formation vous êtes de professionnels doo leen ay amateurs doo leen ay amateurs yéen ay professionnel ngeen donc à travers votre conduite ni ngeen di taxawee ni ngeen di liggéeyee ni ngeen di wax ak nit ñi ngeen di aar toujours wan leen leen yar soo leen gisee service civique ñëw fi tey pour am taxawaay ci yéen mooy yéen lan ngeen war a mën a taxawee seen dëkk naka ngeen ko mën a mën a jàppalee à travers ni ngeen di comporté woo à travers yéen seen ité te liggéey boobu tamit ku nekk yow yaa xam sa àq laay taala liggéey boobu rek bu la taxee jóg yow kenn yaay def liggéey bi waaye kenn du la jàppale donc man ya gëm naa ne yéen yi ku ci jël ku ci nekk benn par benn xam naa ne boo weetee sa biir néeg di nga soñjaat sa bopp xool naka ngay def ba li nga xam ne moom nga jublu yàlla mën la si jàppale yow tamit nga am ci taxawaay bu dëgër waaye du man maay wax ak yow yow yaay wax ak sa bopp te loolu mooy tax nit di jël ay décision ci améliorer li nga xam ne moom la nekkoon di def te yàlla leen yàlla jàppale ci yoon bi ngeen jël yàlla boo leen ci gis loo leen jaaxal yal leen yàlla taxawu aussi ngeen toujours ngeen di yokk seen xam-xam xam nga whatsapp dafa rafet waaye ay image rek ngeen ciy gis bés boo leen ci bëggee rechercher leneen lu jëm ci seen liggéey dina yomb pour mu won leen ko mais ci kaw yéen ngeen utiliser ko ci lu nga xamee ne moo nekk seen liggéey liggéey boobu tamit mooy tax suba ngeen mën a am taxawaay ci Sénégal mooy tax ngeen mën a am lu nga xam ne suba di ngeen ko mën a yóbbu seen kër pour seen waa kër yi mën a xam ne yéen ah am na taxawaay bu bees boo leen taxaw ci liggéey boobu nag ñun dinañ leen ci jàppale lépp lu ñu mën a def ci opportunité bu feeñ du ñu manqué woo mbuub ne ko ah yow soxla woon nañu sa liste formation bi nga xam ne yow yaa ko amaloon parce que on a besoin de quelques jeunes ou de quelque relais ou volontaires dans le cadre de telle ou de telle activité te loolu du tu du nga xame ne ndam la pour man déedéet ndam bi pour Sénégal la parce que moom ngeen di liggéeyal te moom ngeen di amal taxawaay bëgg ku xam ne mi ngi ci biti bu gisee biir Sénégal xam ne ah ñii discipliné nañu gëm nañ li ñuy def te professionnel nañu voilà lépp lu nga xam ne seen profession da ko nar a yàq ni ngeen ko bàyyi wala ngeen ko dindi dee leen nelaw heure di yeewu heure di respecté ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ngeen amal affaire parce que boo respecté nit yi nit yi respecté la loolu tamit bokk na si li ma leen di sonjee ku ci ne nga xoolaat sa bopp am benn taxawaay bu bees xam ne formation tàggat la boo ci jógee da nga war a avancer loolu daal laa amoon lu may wax ci wax ne bu fekkee dafa am lu lu ci ñagas-ñagas ci man la waaye bu baaxee ci yéen la yéen ñiy déglu leen sant ngeen fekk fii tey mooy deuxième promotion bi mais am na promotion bu ko jiitu woon c'était en novembre 2000 2022 620 lutteurs yoo xam ne am nañu licence mais amuñu combat te ay di ay père de famille euh, am ay charge euh, nekk tam ay soutien de famille euh, yàlla dogal na bañ leen former avec l'aide de la direction de l'emploi bu Modou ma Makumba Bey jëm jàpp ci seen le directeur de l'horticulture Soxna Sophie jàlloo jàpp ci mooy directrice 3FPT fonds de financement de la formation alors ba formation bi jeexee ñoom ñëpp jot nañ seen lijaasa ba ñu pare nañu éclater leen dans trois filières ñii dañu orienté wu si wàllu agriculture ñii ci wàllu euh, sérigraphie mais li ci ëpp nag ci wàllu sécurité ndax xam ngeen ambassades yi représentation diplomatique dañuy soxla en plus de leur service de sécurité interne dañuy soxla des auxiliaires de sécurité police sax si boppam dina soxla des auxiliaires de sécurité am na tamit ay particuliers yore seen kër seen usine wala leneen soxla des auxiliaires de sécurité alors main d'œuvre baa ngi fi mais qualification la ñu amuloon kon nag rolu euh, kuréel bi nga xam ne moom la xaadim jiite mooy fexe ba ñoom ñu am qualification am nañ qualification nag 620 jàll nañu alors euh, général euh, promotion bu tey bi nag moo ëpp ambition moo tax bi ngeen di ñëw yéen a ngi assister à un cours de secourisme voilà parce que dootuñu leen former rek ci wàllu naka la ñuy assurer la protection des biens et des services waaye dañ leen di former tam ci secours ndax mën nga tombe sur la voie publique un accidenté wala ku ñu agressé wala leneen ñu wan la les premier soins noo koy defee. Euh, kii tamit mu ngi fi woon le capitaine euh, Wàcc wala Njaaj léegi la fi jóge euh, ay kilifaam ñoo ko fi yebal ndax gouvernement bi comme ni ngeen ko xamee dafa am benn structure buy toppatoo le service civique national moom moo leen fi représenté woon kon nag promotion bi ñoo ëpp sens promotion bële ndax ñii bu ñu génnee non seulement dañuy nekk ay boroom yi kàttan am toutes les techniques de protection rapprochée waaye également dañuy nekk ñoo xam ne ils sont de de de de de connaissance ci wàllu secourisme ak ci wàllu civisme voilà kon nag tout à l'heure xam naa euh, représentant wu ministre bi soxna Khady Diène Gaye dana leen jox seeni diplôme waaye nag euh, partenariat jam Jamra yemul foofu am na ku ko posé léegi ci yéen question yemul rek ci formation ak ñoom am qualification bu ñu paree nag dañuy ànd ak ñoom mu des beneen combat moo di le réinsertion professionnelle. waaw xanaa santaat yàlla julli ci yonent bi rek. daal di sant Ahmadou Bamba Mbuub ndax bu ko neexoon mu doxee neneen mais jógee bitim réew ñëw lim jàngi woon foofu ñëw di ko yaatal ci dëkkam man ci mbër yi njëkk a ci laa bokk reconnaissant moo ma indi ci soo ngeen gëstoo di ngeen ma gis ci wetam mbër yi ko am yëpp it war nañ am reconnaissant bu toll noonu parce que li nga xamut amoo ko mënoo ko ki ko décroché xamal la ko mënal la ko ba nga tey kenn tuddeetu la nervi kooku gàcce ngalaama war na ko waa CNG itam amel nañ ko njukkal parce que loolu seen domaine la waroon doon parce que mbër gu duréy di entraîner amut liggéey maanaam nit ñëw tàggat ci xel mi def ci lu baax def ci mu am euh, formation ah wax dëgg yàlla kooku yow la ko defal yow yow yow waa CNG kon dañuy bëgg ñu jox loxo ba Amadou Bamba bu baax di ci woo président bi di ci woo premier ministre di ci woo xam nga ministre des sports parce que ñun esport rek la am moom mu ñëw ci biir sport bi bañ na ko boobu bi mu defaree labelam arène bi sécurité la ko tuddee aussi ba tey toujours mi ngi gunge mbër kon ñun bëri njukkal ko war nañu maa fi taxawee taxawaayu tous les lutteurs nga xam ni defal na la formation ak ñi ko bëgg te amaguñ ko ñi ngi bëgg nag président teg ko loxo ba loolu mu bëgg a biral fésal ko yàlla defal ko ci kàttan ba mu mën ko incha allah. ay waay féexal sab xol ah original neexal bu te am na